Tivaouane TV déglul li wax nee na Muhammad mosul dóor jigéen ñu ne ko dóor na góor mu ni mukk mosta dóor góor ñu laaj yenint bi lu tax sa soxna yi ni ñu mel di dóor dóor mu ne sama yaay Aminatu jigéen la tig du nangu mukk ko dóor sama yaay kenn xalaatu koo dóor ma ne fi kon duma dóor yaay jaam te jigéen joo gis ndey la jigéen joo gis ndey la dóor bokkul ci ànd rocci sa ceinture ceinture yemoo ca nga saaga ndey watat génn tëj bunt yi liggéey Tiwaawoon am na ko fa mës a dóor jabaram soxna ma da ko woo ba mu ne ko génnal kër gi fii lii xewu fi dóor jigéen xewul ci kër gi ci biti laa wax fii loolu xewu fi Muhammad mësul dóor jigéen mësul dóor góor soo ko laajee mu ne suma bàyyi day góor yaram la ñun nag sëy yi ci jàkk yi lañ ko fase baa ñu faseeku ci kër yi baa ñu faseeku ci pinc ma ba pare mottalee ko ca hôtel ya xam nga nag sëy buñ demee ba ka lay jàngal na ngay àndeek sa soxna benn tubaab bu jigéen bu alku la ak benn tubaab bu góor bu alku ñuy def lañuy def ngay seetaan seeni action fas yéene ànd kii ñu la may ci jàkk ji ci façon bii war nga sa diini war nga sa diini yeneen bi balaa daan séq ak soxna di julli ñaari ràkka def soixante-dix astaghfirullah sant ko soxna si mu def ko ñu am laab ñoom ñépp def séq bu yiw moo ko may Faatimatu bintu Rasul mi jaatam موم طريقه الخادريه الطريقه التجانيه جسنغ لوي يودي منول تور لوي سو غيسي يالا بڬ ني بولي ñaar يو يو pour ñu jur yi watax ndax wal baladu tay yakhruju nabatu والذي خبص لا يخرج الى نبس الى خب الى نكدا مو ورال نك الخبيثات ndax illaa nekki dan jee tax yaxruju nabaatu bi ne rabbi mooy at tayibaatu lil tayibiin yàlla lu mu dugg mu barkeel lu mu génn mu àlku nañu yërëm jigéen ñi bàyyi dóor yàlla de waxul lool ci alxuraan wa aashiruhunna bil maaruf na ngeen ma leen tiil ti ngeen topp tool ma leen soo dematee Maodo ba mënatoo yor nañu waxtaan su déggu mënee am ak teraanga continue fa imsaakun bi maaruuf suñ demee ba ànd mënta am aw tasrion bi ihsaan yàlla nee na nañ sosee ngoro ga bu teqale ko amee nañ ko teqalee noonu nañu sosee ngoro ga mooy neexal waxtaan jënd lam jënd long-long jënd téléphone maye reelu ñorog lu ñorul soo demee ba muy jeex na jeexee noonu loolooy ngor yàlla nee bu jeexin rafetee bu bëggaat amee mu yomb su jeexin ñaawee su bëggaat amaatee mu jafe ci promenade de Thiès waa oustaz la doon gàmmu gàmmoom ñu tegal leen fa wax bu Serigne Cheikh wax Serigne Cheikh nee na bala maa dee nga dégg góor gu naan sama jabaree raxas samay tànk nee na loolu fuñ ko teg nee na fa nga demoon ba sa tànk fënd yaa ko xam raxasal ko sa bopp Sall yaa ngi toog fekkee nga ko mbàkkee ngi toog ñooñ ñépp a ngi toog mu ne fa sa yaa xam fa nga demoon ba sa tànk téye raxasal ko sa bopp tax booy takk jabar fuqaaw yi ne la takkal sa nawle ki bañ li ngay bañ bëgg li ngay bëgg takkal kooku koo xam ne li ngay bañ bañu ko li ngay bëgg bëggu ko loo koy doy day yàq sa njaboot moo tax fuqahaa yi ne takk yow Maodo takkal sa nawle li ngay bañ ki ko bañ li ngay bëgg ki ko bëgg ànd la ko soo ko deful teqale ko muy mujj dóor baaxul loxo góor xam nga pour kan la bombar ji demal nga xeex ak moom jaay mën a doon te demal ci arène ba waaye góor bu wagas caayam di alteeru di funki ñu naan non non Iran toogal mu ne kii dana xam ni jigéen du ma yab wax nga dëgg góoral la yab yambar nga moo tax nga naan jigéen du yab Serigne Abdoulaye si dañoo ànd mu yor saak yi jiitu toog moom booba bu oto bi gaare dañuy njëkkante bagage yi sàcc doo nga taxoon nag pon gi yi nu ku njëlu kees gis danga koy rox ci suufu escalier yi du geesu ndeysaan ndax mbaaxam ma tardé keese yor saat bi sëriñ Abdou di dox xam nga dafa bëri itti di waaxu ba romb soxna Ayda soxna Ayda ni ko simmaali mu ne ko nii kan jox bi gisuma la jéggal ma ko bu doon ñun nooy def Maodo waaye xam damaa sonn nga naan ay ma fay biram maa ngi maa topp ci kawam sëriñ Abdou dem bay téye loke bi bay téye mu ni ko si Malick mu ni wëlbit ne ni loxo tóor ci pooj bi ko kan job bi lay gisuma la sëriñ Abdoul Aziz laa wax ñu ñuy bondeeg bi ma lay takk amuleen dara dama fekk seen kër ndóol lépp mais yow bi ngay juddu indi woo tuba yi di taati neen nga juddu yaa gën a ndóol ñëpp dama leen di laaj ku fi indiwaale tuba na ko wax et alors parce que ci ndóol lañ jóge loolu tegewul fen way jur yi war nañ jël seen responsabilité parce que sa doom ñëw ñuy dóor guddeeg bëccëg ndax waa ji am na xaalis nga naan ko boo tasee sëy bi ku lay yor ku koy yor ku dul yàlla nga naj ko ci ñu di ko alak fu muy tegee tegewul fenn sëy ñaari góor dañuy moytoo lorante la darara wala dirara dóor bokk ci sëriñ Babacar dafa toog am ko saaga soxnaam ba ñëwee ñu wax ko ne ko dañu bëggoon jubal leen mu ne ah ndax sëy amati na fi ku saaga ku tudd fa sa jabar génnee dañuy seet ndax sëy amati na fi walla amatu fi kay nga jël sa jabar tudd yaayam wax ca lu ñaaw fan la tege Seydina Omar ibnul Xattaab dafa am kenn ci saaba yi ku jabaram doon kër kër ji nga ne jigéen loo rëy rëy daraja bu guddee nga xam ne mooy sab sëriñ ah daa du garam bu bu yéeg xoggal baat yéeg yooyu ak di defaru sa sa seet sa guddee gis nga mbooloo mi nga dajale yépp moom ngay booleeg sa bopp raamal ndaw si te dee mooy la oustaz xam nga man may sa oustaz kon yi may sëriñu gaa yi seen sëriñ dara nga ci mën dara yeggu ca du yonent du waliyu du xutubu du kenn jigéen réyu kenn réyul ci kanamam waa ji Seydina Omar boobu mooy amirul muminina moom Omar mu fekk ñu Abdullahi doomu Omar a ngi toog mu ne ko Meu bàyyi laa soxla woon mu ne ko mu nga nële ci meu jaww yi mu ne ko meu mu ne ko kee ñu tóoj ci kaw soxnaa moo ko poñe ba aj ko mu ngi mel ni maria fekk meu Mariam ministre buy boole si ci Macky fekk Marème Faye tooñ Macky waññee ko si kaw loo war a def yow ministre dellu sa ministère xam ne gannaaw kilifa kilifa yi lañu ñu aj ke yow demal toog léegi ñu aj mu ne kii ci jaww ji kan la ñu ne ko amirul mu'minin mu ne Seydina Omar mu ni ko ki ko askane ndeyam wala mu ni moo soxnaam nga naan ndeyam yaay dana def lii doom omar a nga bëgg ñu dindi baaraam dey bi ndax fii la xoj mu ko naan dindil baaraam bu mag bi yaa ngi may gaañ góor ga ne ko sa baay pare nuyul ma maa ngi dellu kër ga dal ajabuma lu xew yow jigéen noo koy xañee ndeyam xañ ko bàyyam bëgg ko xañaat sa bopp kon mu métti soo ko xañee ndeyam xañ ko baayam remplacer ndeyam ak baayam ci moom c'est ça bi bi bi xale bi soxna si bàyyee Omar Omar ñëw jaab de ne ko kenn jaaru fi mu ne ko ankay waaye da doon laaj waaye tontu na ko suma tànta tontu na ko ndax soxnaa ma ko tool mu doon boole si ci yow mi kilifa jullit yépp mu fekk soxna si aj la mu ne lim doon laaj leer na dem loolu ci man njàmbaaru góor ci këram mooy joxe dépense góor day nangoo joxe te booy joxe bul calculer waaye wax ma loo jëndee soble yaboo yi ñaatal yow am nga njëgu ngot doo jënd ngot wala jaleñ nga naan yabooy Cheikh Al Hadj Malick nee toroxlu toroxlu day toroxal nit nee moytul peñe bu damm wutal peñe bu bees caqantaratul murid téere la moytul for bant secréto jëndal paquetu bant bi ñuy secréto moytul jël sa caaya baa si jindi fompo jëndal serviette lënd yi ci néeg bi dindi ko day xañe wërsëg boo dee lekk lalal nàpp tuur day xañe wërsëg sooy lekk téyel ndab li ñàkk téyel ndab di dëstan day xañe wërsëg toog ci buntu néeg wala buntu kër day xañe wërsëg yépp Maodo ko bind mu ci xantara te waxi yeneen bi la sarxa yow ngay dóor ak saaga ci sa añ matul as askas ci loolu lañ teg asiya booy di ci tëmb ni ku ne ci dex di ma ñax ma ñax nga am loo wax góor day rëy xol góor day rëy xol bul def lu tuuti mukk yaral sa doom yàqal sa jabar yaral sa doom yàqal sa jabar sa jabar boo ko mënalee lu ko kenn mënalul balaa ñaan baat seetaat ko de am na ñu xam duñ ñaan baat mukk ndax xam ne gisuñ ko la tare réewalal sa jabar yàq ko ci mën ko yaral sa doom bu sa jabar ñee kenn bu ay moromam toogee di waxtaan sama appartement man de ñaari weer fay ñu ko ñetti weer fay ñu na ne man de fay naa ba desal xam nga yor jabar muy ñaan ay moromam ay yabooy ak ay yoroo fi ndawal lebal ma mu ngi gàcceel mbàkke góor de góor jàmbaaru ngóor mooy nangoo joxe dépense su Maodo amee cent mille francs kay nak bu ñëwé né xam ne bàyyi dikk na ay mbéj rek banque dur saga ndé toroxal fasi suba jël ngol amna joxine bo xamné xam ne xañin dana ko dàq ndax xagn gu and ak leung borom mo dàq jox gu ànd ak jéppi borom gor lu ci jigéen ñi di leen yërëm nak boo demee wax naa ko maas nee naa ko projet yi ci tribunal yëpp ñaar na suuf yi soxna yi jël suufu jàmbur jaay kër guñ jaay fukki nit ak juróom génn kër fukki nit ak juróom mën nañ ko bokk nangu toolu jàmbur ndax am nga doole looloo ne tribunal beneen projet bi mooy jëkkër ak jabar su ko defee nag ñu defee ne leneen na koy régler déedéet ñoom oustaz ñee ko mën a régler boole leen leen ci débat yi ndax ñoo xam li yàlla wax ci sëy yi ool Alioune Sall wala Mbacke Sylla wala nga oo Maodo wala Alioune mbay mu ñëw ngeen ne ko tey émission bi may def ci sëy la wax ma lu yàlla wax ci sëy nit ñi dégg ko waaye ne ko waxal boole ko wëndëg ñu mel ni Iran

puuta ñëpp tëju ñu ne patt ñëpp ne ci kër yi buñ ko defee semaine Sénégal perte lu bëri man noon naa la daaw jinne laa heure bu ne lay dox quatre heures du matin cinq heures du matin six heures trois heures bu ma ñëwee ci duudaa ni puut yi maa ngi fekk jigéen ñi ŋàbb seeni kelem mantin di xaar parce que li ñu war a suba moo jaragul tey te seen jëkkër a ngi ni dumm ni jalu mbalit ca kaw lal seetal loolu yàlla ne waqar na fii bu buyuutikunna ni jigéen ñi organiser li góor gi indi góor gi ne man la an lu may indi ba ñu koy organiser jigéen génn wuti ko est-ce que xam nga ne Aline Mbaye si ma laaj leen ndax doom moo tax ñu koy def déedéet du bànneex de xam nga lu Cheikh Al Hadj Malick bind Maodo ku garaaw la nee na sëy doom ak lal wis la ci wis wis mooy nga jënd gerte ñu tibb dolli la bu ñaa la ci ñu ne ko kon luy sëy Malick mu ne nga takk ndaw si ngeen am at ñaari at nga gërëm ndaw si ndaw si gërëm la ndax yëg nga ne def na ci jikko yu baax yoo yoru loon moom it def nga ci moom jikko yu baax yum yoru loon ne ne lii indi say defaraante te neex naa dégg ci atta ja ku ne day dolli moromam waaye lal bi rek yi rek toskare rek nag sëy ñaari lal la am ñaar lal bi ndaw si tëdd bu sonnee ak ndaw si lal bi euh, jëkkër di tëdd bu sonnee boo fa indee ñettu lal iblis sa ciy tëdd su ca bàjjen tëddee iblis dooleel ko moo tax sëy bu ci boole ay mbokk bu ci boole xarit yow sa jëkkër rekk bu guddee lu leen naqari ngeen waxtaanee ko waaye boo ci boolee ku amul jëkkër tey nga dee dana dagg sab caq ngeen ànd di wëndiiru jigéen ju amul jëkkër ku am jëkkër du ko laaj conseil dalay dugal kon yàlla yàlla fay aar yooyu Tivaouane TV